kuréel bu Thiès. waaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa lay jox sa wàccuwaay bu baax. waaw doole di la delloo wàccuwaay bu baax a baax. donc gis sa teewaay fay fii ci arène nationale. waaw gis nga noonu la demee sans soxla moo ko jaata jóg. lii la. waaw. maa ngi jégalu de. maa ngi lay ànd maa ngi waaw. di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaw di la doole ziar baax a baax. fii ci arène nationale tey. waaw gis nga de. waral sa teewaay. waaw li waral sama teewaay dama amoon sama ñett booy yi doon bëre muy fils de Samba Diaw ak. Euh, ak Sa Thiès ak Jéeri Siñor. waaw même Baba Jaxal tamit sama rakk la ñoo bokk dëkk yëmbal tamit. waaw di ko bu baax a baax. waaw ànd ak tamit sama coach si équipe nationale Sonkotin moo nekk Sénégal moom moo yor foofu xale yi di leen tàggat. waaw dégg na kay. waaw. bu paree ñu jox ko waa yow waaw man maa ngi ci wàccaay rek Thiès nee naa man pare naa fa mënatuma faa bëre parce que bëre naa ñëpp mënatuñoo jëlee mbër ci àll ba saa bu ñu indi bu rek jox ma ko mooy loolu bëre naa fa six combats six victoire waaw ñam nga ci man fu ma jox baana man bàyyi ma kenn parce que mbëru simple la maa ngi suba incha allah rek dama fii bëre si bu yor simple mu jëm mu topp ko suba rek dama fi bëre simple kon xam nga man bëre dama ko bëgg. waaw parce que waaw nañ ma bàyyi xel bëgg naa tamit gars yi ñëw suivre ma bu baax a baax tamit. gars yi tamit ñëw jàppale ma mu mën fee am combat Ndakaaru. su lay nii moom xam na ma ñoo ñoo jàngandoo alxuraan ñoo bowandoo ñoo defandoo lépp. waaw. waaw gars yi maa leen di jaajëfal ñoom ñëpp. waaw parce que Seydina mi tamit xam moo ma xam nag moom may la ko waaw expert la moom Seydina waaw fa demee waaw waaw mais Nicolas la mi ngi taxaw ak euh, Sonko Tine Sonko Tine mooy booy japonais ki mooy japonais bi jóge Japon ñëw fii ne daf ñun la jël yàlla yow maa ngi ñëw si yow waaw mais rakk ji rakk lamb da nga cee def lu yéeme ah sama kanam da ngaa toj mbapati fii ci Dakar loolu nga jóge fi dem Thiès def fa say preuve mais Nicolas lan moo tax booba léegi mënuñu laa gis à l'arène nationale lan mooy problème waaw damay jàpp ni loolu ndogalu yàlla la rek parce que dama fi ñëw lu bëri pour di fi wane saa boobu ci simple bi mais tamit bëgg naa tamit combat bu buñ ma si mënee jàppale tamit ma mën a bëre fii parce que àll bi li ma ciy def def naa ko ba pare. te li ngay def foofu da ngay toj àll bi mais Dakar fii duñ la xam mais Dakar boo ko tojee Sénégal gépp lay xam waaw loolu moo a jaaxal nag parce que àll bi man kenn du ma fa du ma ko jéem a wax sax man maay kan parce que ñëpp xam nañ ma mais fii nag jot na tamit ñu xam ma bëgg naa tamit samay morom jël ma te xam ne xale laa te te làmb dafa nekk loo am dama ko bëgg tamit waaw dama ko bëgg du ma ko caaxaan. lii daal promoteur nañ xam ne Nécorel pare na pour bëri si fii Dakar. pare naa pour bëri si sama licence ak ngii damaa topp instant bi yaa ngi Dakar wala da ngay delluwaat Thiès Thiès maanaam bërëbu liggéeyukaay rek laa fa am place laa fa yor parce que dama di liggéey di jaay mais bu ma am war dem entraînement damay dem wàcc fa samay rak su ma amee combat dama fay bàyyi liggéey bi yëpp euh, nekk sama sama entraînement ak sama préparation combat waaw ma dem bëre ji